parce qu'on a l'excellent, l'excellent, excellent bilan, aussi bien bilan construction, et cetera, infrastructure, mais aussi bilan social. loolu nag li ci des rek mooy taxawaay foofu nag je fais appel surtout à la jeunesse de la région mais particulièrement la jeunesse de du département bi nga xamante ne aujourd'hui mobilisé nañu ñoom ñëpp pour taxaw pour uh, ñu incha allah gagner élection c'est important léegi laay aussi responsable ci biir léegi xam ngeen jóg commencé dugg ci biir département bi dugg ci pour que région de Thiès bañ a féete ginnaaw sànq chiffre bi wane na ko en général autour de cinquante ko mën a am cette fois ci war nañ ko sax mën a yokk donc li ñuy boo rek responsable bi am nañu ko wax mooy ñu bàyyi ñu ñëw bokk lay bokk baay xam ni benn objectif ko waat nguur na kenn du ko donc ñuy wax ñu dëggal ko maanaam ñu matérialiser la mise en œuvre des wax neex na waaye li am solo mooy teel te ku nekk xam na ki la moom donc na ñëpp am euh, ñu waxante dëgg mais ñu ubbee ci dëgg yi def yenn c'est très important parce que ñoom rajo ci mbooloo wax bu ñu paree bu nekk jaar du loolu lépp luñ fi def dañ ko def concertation dañ ko def concertation li ñu war a woon ñu woo leen diisoo ko ba pare ba ñu jël benn décision et ça c'est très important. seen camarade wax na ko Seynabou Gueye Touré mais parrainage yi dañuy dégg ku am cent mille parrain mais bu ñu demee ci bureau de vote yi bu ñu génne dix mille li ñu mel lan moo doon taxawaay. taxawaay bi mooy dañu war a def un parrainage sincère. parrainage sincère mooy électeurs yi ngay xamante ni tey man je parle ma commune Kassé sama commune Kassé lu ma génne ci parrainage bu élection jotee dinaa ko j'ai cinquante et un villages ak sept am muy cent dix huit villages démb laa def sama la grande rencontre tous les responsables ñu ko dama li leen muy quartier muy amoo muy village il faut dugg pour carte d'identité te ñooñu di ma parrainé jour élection dañ may loolu mooy tax ñu mën a gañ mais dem abusé parrainage abusé donc dañu bëgg li ñuy wax un fichier réel li nga jëlee ci terrain noonu da nga ko war a matérialiser des élections c'est très donc foofu laay waxee sax dama ni bu naxante bu nax président Macky Sall bu ñu nax président Euh, premier ministre Amadou Ba li ñuy jël na nekk suñu militant yi nga xamante ni ñoo ñuy voté ñu ko bu ko defee commune bi dina mën a taxaw ji la bu ñu ko calculer bu ñu demee élection dañuy xam ne avant ñu dem élection c' est un sondage benn gënul wóor sondage mais mu nekk un parrainage sincère man kaset be maag samay gars ñu génn bu élection ñuy très bien monsieur le maire département Thiès bu ñu xool 2017 euh, yéen da ngeen nekkoon ñoo xamante ne euh, seen euh, seen commune da ngeen ko am gagné mais 2017 da ngeen defoon soto à Thiès ñu gis ne yéen da ngeen impliqué a paqueté bi ci effectivement yooyu ay manquement la mais on est en train de voir mooy li ma wax sax parce que 2017 man dama tudd naa Thiès gi mu sant ànd ak ñoom directrice colonel yëpp am nañu ñu dugg dem ci jigéen ñi dem ci ASC dafa bàyyi taset fu ne parce que taset titre foncier ñun suba bu doon élection dañuy gañ bu soobee yàlla donc loolu bañ duggee fii dafa am aussi lu ko war a parce que nafa am ñu ñu proposé woon président Macky Sall jël leen mais comme ñooñu aussi il fallait que ñu def sa travail là loolu taxul ñu duggoon biir Thiès parce que na ngeen xam ni Thiès. Thiès ñun ñoo ko wër tëddee ko fi man damay daagu biir seeti Senghor damay daagu som damay daagu jàmm gën damay daagu Grand Thiès damay mbokk fi nekk de kenn ëppale wu ma bu ma ma xam nag damay yan taset waaye bu ma duggee taset am naa fi mbokk am naa fi am di jàpp biir Thiès te ni ma ko amee noonu la ko meeru Kër Moussa amee meeru Thiénaba amee ko meer yëpp am donc am na lu dañuy gagné largement le département de Thiès mooy monde rural les douze communes bu ñu paree ñëw fii ko gagné wul mu nekk écart bu ndaw ba li amoon 2017 dañoo amoon un grand écart delta bu mag ci monde rural ko additionné ak li ñu li ñu Idrissa Seck la dóor ba ñu ko tey a possible mais li ma leen wax laa na dialogue bi sincère nañu bañ nax ndax président Macky Sall tey amul ñu ñoo xamante ni ñu taxaw ba léegi sama bopp sama liggéey waaye ñun kaset bi ak xam naa sama yenn collègue maire yoo xamante ni suba lundi wala dimanche prochain bu ñu demee élection donc lii laa ci amoon may ñëwee ñëpp te gis nga am na ay candidat de maanaam doole yi benn ni euh, euh, maanaam yéen ko vraiment dëgg waaw xam nga loolu moom erreur la yow mënoo bokk ci bilan cinq ans dix ans boo ñëwaatee di wax li am solo mooy les maires ak dañoo la grande mouvance wala am taxawaay nañ am sax calculer parce que ñooñu dañ leen door dañu ko am sol mooy ñoom nañ xam ne bul génn rek ci sànni xeer te en politique jamais jamais amul nekk nga am nga fi teraanga am nga droit nga dem def candidat mais bul sànni xeer parce que ëllëg bu mën nga ñëwaat te boo ñëwee boobaa doo mën ak ñun ñenn ñi c'est trop mais ñi nga xamante ni ñu ngi dem dugg parrainage ngal la bu leen talee bu ñu dem feneen parce que ku nekk xam nañu candidat yi ñu ngi dégg plus de 200 candidats dañu donc ñooñu ñu ngi leen def appel famille fii mooy kër bu ñu demee rek ñu bloqué leen ñu ñëwaat xam leen téye woon ak nañu ànd woon démb dañu ànd leen sabab alors dans un futur xam nga Sénégal gouvernement bu bees est-ce que gouvernement bi ça sera déterminant ci résultat élection yi waaw xam nga ku nekk xam na ni a président Macky Sall moo fi dàq buñu moo fi dàq tabax moo fi dàq moo fi dàq manager moo fi dàq gérer fi muy teg tànk ñun dañ ko wóor parce que cent pour cent même bu ceeb amul donc yéen ñi tegal moo am solo affaire bu Thiès du Fatick du fenn président Macky Sall man mii moom dàq politique foofu ci moom laay roy politique donc nu ñu amee confiance bu ñu tegalee gouvernement gouvernement boobu ce sera un gouvernement politique. dégg naa consulté la sax ba pare. waaw loolu yow moom fi toll nii da ngay sànni xeer. wala def ñu ci consultation. maanaam am leader wóolu. dañu am leader wóolu. leader bi ministre li am solo. c'est pas biñ ministre. am ngeen fii tey gis ngeen fii est-ce que ministre yi fi def mu ngi toog di ministre du gàncax gi Maguette ministre du ministre du mën naa ko di ko def donc ministre directeur bi am solo mooy nañu dem jege askan est-ce que nekk ministre moo nekk nekk directeur taxaw nga gañ pour dem ci base bi nga ànd ak nga dëkk. lekkandoog ñoom di naanandoog ñoom yeewoondoog ñoom bu jour élection jotee ñu voté la mais c'est pas les postes mais bu poste doon tax a gañ kon duñu duñu élection législative yi passe duñu am résultat yi parce que boo xoolee y a beaucoup de responsables yor ay ndombo tànk dañoo fekk élection donc nañ